sant alaaji Barambake Fallilo, 6 sixième Khalif général des mourides ñukoy koy amal alxames fukki fan ak juroom benn ci weeru février 2023 muy treizième édition bi conférence su sëtu alaaji bara yi ñuy amal at mu nekk di le 14 février 2023 ci Touba Aliya di jotay bu ñu tuddee ren Serigne Mustafa Massamba Mbàkke di ci rendre hommage yeneeni kilifa programme bi bu ñu xëyee jàngum alxuraan xasida bernde ak ziar cérémonie officielle bi li ko dale vingt heures ñuy ñaan kurelu xasida yi jumaa yi jàkk yi daara alxuraan yi lu nu mën ci jàng alxuraan ak i xasida ñu def ko addiya alaaji bara mbàkke falilu bés bàngoo màggaluk alaaji bara mbàkke falilu fukki fan ak juróom-benn ci weeru février ca Touba Aliya ñu di ko yëgal njabootuk sëñ Touba gépp rawatina waa kër sëriñ fàllu gépp mbokk jullit yëpp mbooleem talibe yi ci biir réew meeg bitim réew cheikh yi mbooleem këru diine yi ak mbooleem ñu wëla rante woon ak alaaji bara mbàkke falilu di ko jiitu réew mi son excellence El Hadj Macky gouvernement bi ak mbooleem autorité yi ñuy ñaan ci yàlla ci barke Serigne Touba ci barke Alaaji Fàllilu Mbàkke Xaadimu Rasuul képp ku teewe magal gi mu doon sax defaru tey ak ëllëg assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بعت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرق عادة